bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah alhamdulilah xaqil mubin man kawnuhu awliya yabin ala kitaabil mustabin maha jamihi nihami alhamdulilahi wasalla abada ala lazi bihi lana huda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi zawil nawali wali mbokk yi nu bokk sant suñu borom subhanahu wa taala julli ci sangam ba seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala sëriñ tuba alhaaji cheikh tidul muxtaar yàgg fi loolu te wér waaye ñaan koy itam sëriñ fa sëriñ cheikh fall jëmb maam cheikh rahmé fall babul muridin yàgg fi loolu te wér ñaan koy itam sëriñ tuba xaadimu rasul njabootam gépp njabootu umma islamique gépp waaye tey itam ñu war ci beral ñaan euh, alhaaji abdoulaye jaw laay suñu borom fiqaw fanam guddul ko fanam muy ko wér nekk kattan may ko sutura ak njaboot gi yëpp xormati seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mbokk yi ñu ànd ak seen émission dawaamu shukri delloo njukkal Cheikhul Khadim ci seen télévision Mafatihul Bichri na télévision islamique au service de Bakar Khadimu Rasul ma ci ànd ak samay xarit bokk di ci ànd ak sunu ay bokki diine ndax sunu borom subhanahu wa taala dafa wax ne innamal muminina iqwa waaye joxe ndigal na fa aslihu bayna aqwaykum kon ba tax na ah, mbokk yi maa ngi leen di présenté sama ñaari émission yu tedd ñu fas yéene waxtaane ku tedd muy Seydina Issa Ruhullah ak Baye Laay euh, sama wetu ndeyjoor saxiir Sakhir Gadiaga sama wetu càmmoñ maam Seydina Issa lay ñu fas yéene waxtaane ku tedd xam naa njëkkante waxtu bi comme bariwul te ki ñu war a waxtaane yaatu nañ kon sëriñ bi euh, maam Sakhir maa ngi lay jox kaddu di la dalal sa télévision ba Fatihul Bichri di la wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi alladi arsala al anbiya li ithbati al xaqi wa izalati al batil. ahmadu hamda man fi sama wal ard. wa ashkuruhu shukra man alima anna xayra dunya wal axira bi yadihi suma salaatu wassalaamu ala man xaada lana al islaama wa awdaxa subul wa ala aalihi al xurri wa saabil hudaati al mayaamin xabla kulli sayin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bañ santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu ci baat boobu xamante ni yàlla moo na ko sant ni dañ koy nuyoo sunu nuyoo boobu nag ñu ngi ciy jiital Seydina Abdoulaye Thiaw Laay mm-hmm. mi nga xamante ni yàlla ciy dogalam dogal na tey moo fi toogal Seydina Imaamullahi Mahdi alayhi salaatu wassalaam mm-hmm. di ci teg Cheikh Sidil Mokhtar mm-hmm. xam ne yàlla ciy dogalam itamit moo dogal mu too teewal fi xaadimu rasul Cheikh Ahmad Bamba ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla yokk seenu fan dolli seenu wér kartanal leen ba mm-hmm. lu ñu mébét ci seen diine maam ñoom ñaar ñëpp ak keneen kuy xalifa ci Sénégal mm-hmm. yàlla def ci lu kawe seen jort di rafetlu lool dalal gi ñu da dalal ci sa émission dawaamu Chukri mm-hmm. ci Bichri TV muy nekk loo xam ne sam euh, nii la Sénégal mos di tëddee. kër diine yëpp benn la. Mhm. mu nekk loo xamante ne daal lu ñu rafetlu la lu ñu kontaan la Serigne Moustapha Ndiaye. Euh, tabarkalla jërëjëf euh, Serigne Saxiir Serigne Mouhamadou Saxiir euh, tabarkalla nuyoo bi am na solo te matale na xanaa ñu gersu rek ci maam Seydina Issa Rouhou Laye tabarkalla ñu ngi lay dalal sa télévision Fatima bi ci daaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Mhm. alhamdulilah rabbil alamin mhm. salaatu wa salaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant yàlla bu baax di am mbégte ak kontaan bu mag si teew fii si émission bi nga xamante ne mooy Doomu Chauffeur teewal si ñu diglu commission scientifique bu laayam di jël ñu loolu tedd nag ak yu mag ak ziyaar yu mag te jox sunu xalifa nga xamante ni moo fi teew Seydina Limaam ci kaw suuf Seydina Alxaaj Abdoulaye Thiawlaat suñu borom yàggal ka fi guddal ab fanam ak mbooleem xulafaa yu nekk si biir réew mi suñu borom yàggal leen di li ñu bëgg si seen diine maam ñoo ko xam yàlla defal leen ko jaay Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñëw bokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kon mbokk yi ñoo ko bokk déggandoo nuyoo bu matale boobu nuyoo bu tedd boobu nuyoo bu sell boobu seq si sama ñaari gan ñu tedd yi xanaa rek euh, euh, Mouhamadou Sakhir mm-hmm. su ma waxee njiin mm-hmm. mbaa ma ne la limaamu mm-hmm. mbaa ma ne libaas mën ne Mahdi sa xel fi muy dem boo ma waxee loolu mm. sama xel day dem ci ki nga xam ne benn woykatu olofam daf ni waaw géej gu dul jeex la ndeysaan te raw lem ci ak neex boo déggee olof mu yokk la ca ne mu la te làmboowul ak teex ndeysaan <laughs> kooku mooy kan hmm. Seydina Limaamu Laay hmm. di doomi Alxasan Caw hmm. way juróom wu góor mhm. ak kumba mhm. way juróom wu jigéen mhm. moo xamante ne mu ngi cosaanoo yoof gii ci quartier bu ñuy wax Ngapparu Ngapparu fa la juddoo ci atum mille huit cent quarante trois la gane àdduna moom Seydina Limaamu Laay comme noonu waxal way juram yooyu ñoo ko jur fii ci yoof mu nekk lébu piir mhm. bokk ci askan wi ñu xaagaan ci lébu xaagaan mhm. li ma la waxee léegi mu juddu mille huit cent quarante trois mhm. dund comme ni xale bu lébu di dunde dem géej ak bay tool parce que jamono yooyu looloo xewoon moo doon liggéey bi gënoon siiw fii ci sowu jant ñu ko daan wax tànk mhm. boo deeb lébu dem tool mhm. bu nawet jeexee nga dem géej mhm. sëy naa limaam bi mu juddoo yoof activité yooyu la doon def ba yàlla dogal mille huit cent quatre moom ñeent fukki at taxaw ci tundi yoof ni ajibu daa'iya llah yaa mahshar al jinn inni rasulullahi ilaykum muy mille huit cent yi nga fi lim yëpp daal soo ma ko xee sama xel ci kooku lay dellu mu ni ndax ko ni mu ko waxee ci arab waaw la ko waxee ci wolof parce que nag yàlla moo ni su may yónni ab yonent làkk waw xeetam di làkk ca lay wax wa ma arsalna rasul illa bi lisaani xawlihi lu yu bayyina que yàlla mission soxlool interprète mun leen kalay leen kaay leen ñëw leen dikka leen jaa amrul azam mahdi mi ngeen doon xaar maa ngi alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. daal di nag mm-hmm. nit bu ba tur yu bari mm-hmm. ci nit day tegtale mbaaxam dëgg la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam démb mm-hmm. da ngay jàng ci ñu la nu la am lu ëpp junniy tur mm-hmm. Muhammad Hamid Ahmad Moustapha Mujtaba Yaasin Taha et cetera ila axira mm-hmm. Seydina Limaamu tamit moyul yoon wi dafa tudd njiin njiin baatu wolof la Mhm. booy tëgg xam nga olof olof léegi sax dañ koo yàq. Mhm. waaye tabal kenn daawu ko tëgg ay sabar la ñuy tëgg mhm. tabal dañ koy jiin. turu njiin foofu na jóge njiinoo njiinum yàlla jib na. mooy njiin. bàyyi laay. tur wi li ko indi. te dinaay faral di wax ni Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wa salaam mhm. da cay jàngal jamono mhm. jàngale mu rëy mhm. dafa jëkk ñëw ni man sama sant caw teg naa ko fële yéen teg leen seeni sant fële ñu bokk sant laay ñu moo tax ñoom di turu bàyyi laay bàyyi bi wax laay limaamu tur wi li ko indi mm-hmm. dañuy wax Mouhamadou Ba ca Fuuta mm-hmm. dafa fital jihaad mm-hmm. te niñ doon dunde lislaam ku ku fital jihaad tundi réew mi yëpp dañuy dem jàppale jël bañ yégée ni ca Wuro Mahdi dëkk bu ñox Wuro Mahdi ca Fuuta ba mu fitalee jihaad waa jant ñoom it def seen délégation ne dañ koy jàppale ci jihaad parce que l'islam la ba ñu ñëwee muy recevoir gan yi muy recevoir recevoir gan yi par dëkk par dëkk par dëkk ba waa sowu jant egsi mun leen yéen fu ngeen bawoo ñun ko ñun de sowu jant fu ñuy wax tànk xam naa sax ba ko wax ji matee. dinaa leen si la moo indi ta baatu tànk boobu. Mm-hmm. mun leen lu leen tax a jóg. Mm-hmm. ñun dañu ñëw jàppale la ci jihaad ji nga woote ngir yëkkati lislaam mm-hmm. Ba moom moo leen ni yéen ngeen fekke lislaam lislaam moo leen di fekk xam nga la ma waxaloon waraloon loolu. Alassane Thiaw mi jur limaamu daa bokkoon ca délégation bi limaamu juddoogul mun leen jataay bii ma toog yàlla wan na ma ni. kii juri mahdi yu mu ñuy wax aaxiru zaman mu ngi ci mbooloo mi waxul tur la ni leen daal dellu leen parce que xam nga lan doon bañ mm. parce que ñu fital fa jihaad ñu bokk ci jihaad ja mm-hmm. bàyyi ba des fa te war leen yéen dellu leen mm-hmm. waaye benn ndigal daal laa leen di jox mm-hmm. fii ba déwén ku fa judd di liir bu góor na ko tudde limaamu imaam baatu ol ol moo ko yàq naa limaam mais imaam la mhm. bi nu dellu see ñoom mhm. euh, dañuy wax ñu ne fukki limaam fukki doom yu góor mhm. ak ñeent judd nañ fii ci yoof waaw waaye mbaax la ku nekk ni ma gënoo ma caa yey waaye li ñuy li ñu seetlu moo di fukki limaamu yog ñeent yëpp kenn moo ci dundaat muy limaamu caw ma alasaan caw ak kumba ndóoy loolu moo indi turam yu bari yooyu mhm. kooku nag moom laa li bi mu dem bam ñeent fukki at moom moo taxaw ci tund yoof yii moom la ñuy waajal màggal incha allah ci alxamis jii di ak àjjuma jii di ñëw bu sooba yàlla incha allah taxaw ca pind ni man ñii maay yonent yonent bu yàlla la mhm. loolu daal laa la mën wax ci turam yu bari yooyu tax na ñu dégg ci eh, wax ni wuyu ca woote ba tey matal farata yaak sunna moytu moytu mu aaye ndax du am luy ngërëm lay ngërëm la ci limaamu laay sëy hmm. moomu nag waaw euh, dafa am loo xam ne sax dañ koy coller motif may lan te day di dafa am loo xam ne Sénégal cat la ci ñun hmm. nit day yëngatu doo ko gëstu rek daal ci kaw hmm. nit waaw day yëngatu loo xam lu mu yëng lu ko yëngal rek nga dal ci kawam moo ñoo dal noonu laa yéen hmm. moo sey naa limaam dañu yont rek ñu ne laa yéen dañuy wax li ñu wax amul parce que la nubuwata baada muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moom la jox wax ci téere yi hmm. waaye bu ñu déglu woon hmm. xam ni ñun waxuñu ni bàyyi laay beneen yonte la dama ko wax daaw ci benn télévision appelu daaw animateur bi man ñun daal ñun li ñu mënul comprendre limaamu nan la mën a nekk yonent mën leen. firiñu ko ah. mën na ko firiñu ko. <laughs> Euh, bi ma waxee loolu ma ni ñun laa yéen. Hmm. ñun ak jullit yépp ñoo yem ci gëm ci ni. sallallahu alayhi wa sallam. nubuwa. Hmm. risaala. mu ngi yem ci Seydina Muhammad alayhi salaam. kenn gënuñu koo gëm. day bokk sax ñi mag ñi xam te dañoo gëm ci seen alimaamu mm-hmm. da cee am ñoo xam ne ay boroomi may lañu ay boroomi téere lañ mm-hmm. bi ñuy ñëw ci yoof di seet si seen alimaamu dañ ne ko laa nubuwata ba'dahu lañ wax mm-hmm. ñu song naa alimaamu seet si ko mooy li ma wax rek bu ñu laaj yoon fu ñu teg loolu rek réeroo du am euh, su ko defee ñun laayeen dañu ne mhm. wala Seydina Limaamu moo ne mhm. man maay Muhammad mhm. Muhammad waxuma leen beneen yonte laa Muhammad moo weexoon rek ñuul te moo ko diggee woon Seydina Muhammad sallallahu tamit du ñu wax lu génn téere yi nit ñi xam déedéet parce que téere lañ koo wax damay faral di wax ma ni bu ixtilaaf amee du ci dekk dunduk Seydina Muhammad baxda wafaatihi su ixtilaaf amee du ci xayaatu Seydina Muhammadin baxda wafaatihi sallallahu alayhi wa sallam wal ixtilaaf bii am fi kayfiyati xayaatihi bada wafaatihi sallallahu alayhi wa sallam dama ne bu amee mooy werante ci boroom xam-xam bu amee du ci ni Seydina Muhammad ginnaaw buñ ko dencee Madina dundaat na déedéet nan lay dundee loolu mooy ixtilaaf jalaalu diin as-Suyuuti ku siiw la ci lislaam dafa bind mu ni اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بجسده وروحه جلال الدين السيوطي moo ko wax day na nga xam ni sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xayyun aji dund la bi jasadihi wa ruuxihi jëmm ji ak ruuy mu ngi ci kaw suuf Mhm. muy benn. Mhm. pour wax la kayfiyatul xayaat moo am ixtilaaf. Mhm. Ibnu Baaz Bun Baaz mufti màkkaloon bi mu génnee àdduna lu matagul ñetti at. dafa bind moom it ci téeréem. at taxqiiqu téere bi nii la tudd. koy gëstu. at taxqiiqu wal idaaxu. li kathirin min masaail al xajj wal umra. téere ba noonu la tudd daf caa wax mu ne. Hmm. laa shakka. anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam. baada mawtihi xayyun. Hmm, waaye nag lu mu ci rek. xayaatan hmm. barzaxiyatan. Ah. kon yaa ngi dégg li ma lay wax. bu ixtilaaf amee. fi kayfiyatil xayaat la. laa fi fa laa fi xayaatihi ibnu baas dani amul sikki sàkka si ni sallallahu alayhi ginnaaw bu ko dencee madina dundaat na waaye nag barzaq la roo leer gi moo des ci kaw suuf kële muy suyuuti daf ni la jëmm ji ak roo gi mooy dox ci kaw suuf kii ni la déedéet xayaatan barzaqiyatan roo gi ak leer gi moo des ci kaw suuf te comme lii ma lay wax rek dama koy fàtte wax samay waxtaan ma ni euh, bu dee ay sénégalais la da ngay wax ak ñoom ci li nga xamante ne ñoom la Sénégal yi bind lii ma lay wax xaw ma nag mool yu bees yi mais mool yu jëkk ya Omar Fouti yu téeram bu mu tuddee rimaaxu bu siiw la xam nga la moo di rimaaxu Cheikh Tidiane Chérif sëriñam moo bind jawahirul maani jawhar mooy wurus <laughs> Omar Fouti yu ni kon wurus ko ko am da nga koy aar jël téeram tudde ko rimaaxu mooy jaasi pour mu waggar ko moom mm-hmm. daf caa indi ay solo yu am solo mm-hmm. wax ni mm-hmm. daf caa cité ci te mu ni waxaala ustaaz Abu Mansour Abdul ibnu Tahir al Baghdadi lu mu wax dani wa qaala almutakallimuun almuhaqiquun min ashaabina anna nabiyana sallallahu alayhi wa sallam xayyun ba'da wafaatihi Seydina Muhammad ginnaaw buñ ko dencee Madina dundaat nga demaat ci te mun wa rawaa Sufyaan athuuri ku siiw la ci lislaam mu jël ko an Saïd ibnu Musayyab lu mu wax dani maa makasa nabiyun fi xabrihi akthara min arbaina layla xatta yurfa ñu ñoom yonent yi bokk na ci seenug may bokk na ci seenug may buñ leen dugalee ci seen biir bàmmeel ginnaaw ñeen fukki guddi dinañ génnaat dégg nga ci téere boobu ba tey waa kon ca tey téere booba de bu dee yonte bu nu amee ñeent fukki guddi ci seeni bàmmeel dañuy génnaat fu ñuy ne mu nekk laaj bu am solo waaw albayhaqi mhm. ku siiw la ci sunna xam nga nu mu ci rek moom dani mhm. fa ala hada yasiruna kasair al axyaai yakunuuna xaytu yundiluhum allah حيث بالنبي ظرف مكان حيث ينزلهم الله neen noonu la ñu nekk comme ñeneen ñi rek ñu dox ci kaw suuf ba fu mu soob yàlla mu wàccee leen fa anas malik hmm? mhm. dafa wax ni maa min nabiyin yamuutu wa yuqiimu fi xabrihi ila arbaina sabaxan kon ñoom ñaar dëppoo nañ ci wax waaw imaamul xaramayni nag dafa bind benn téere su dëkkoon ak nihaaya mhm. moom dafa daf caa indi wax yonente bi nag sallallahu alayhi wa sallam mu ne mhm. anna akramu mhm. ala rabbi min an yakru yatrukani fii xabri ba'da salaatin mu ni man sama daraja xayru xalxilaay lu gën ci lu yàlla bind sama daraja sa borom ëpp na man mooy bàyyi ci sama bàmmeel ñetti guddi imaamul xaramayni boo demee ci téeréem ba moom daf daf caa yokk ni wa zaada abdul karim wa zaada imaamul xaramayni aksara min yawmayni moom nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko dugalee Medina moom fanaan fa ñetti guddi ñaar la wax lépp ñaari guddi ñun laa yéen nag ñun leen hmm. yonent bi ñaari kër lam ci kaw suuf actuellement hmm. Medina ak jàmmalaay am naa sama kiñ ma tudde hmm. mufti la woon bu mag ci yoonu laayeen hmm. dafa bind ci benn téere bu jox kitaabu taskira hmm. mu ne wa min sidqi xayaatihi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ijtimaahu maa cheikhi rabbaani wal barzaqi maktubi cheikhna ahmad tijaani siiw na lool ñu ne Cheikh Tidiane nee na day dox ba yonte ba dajeek moom nuyu ko ni ko man maay samaam rasulullah jox ko salaatul faatiha <laughs> tabarkalla ñun laayeen mhm. loolu lañu wax ni beneen yonente amul mhm. Seydina Muhammad mhm. moo ñëwaat ci kaw suuf tabarkalla kon Seydina Isa euh, leer na kon dégg nga ko layal na ko indi na bunt yu bëree bëri ci ñi nga xamante ne ni ñooy ñi ñu mën a déglu di kàngam li nga xamante ne ñoom la fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon bu ci bu jukkee rek ku mel ni anas rek mu daal di mën a doy xaramay hmm. ni kasaalika hmm. ku ne andi na euh, lay bi dëgër na wér na itam waaye euh, jàmbaar ji ñu wax ne maa fi del maa kii weexoon mu dikkaat ñu am fi ndey am fi bàyyi dëkk yéen waaw hmm. maanaam yomb na jafe na yomb na jafe na saa biir dëgg kenn mënu wax lépp hmm. waaye am na lu ci xam hmm. ñu ñaan yàlla suñu boroom ñu bàyyi ñoom suñu xel hmm. ak suñu solo ba wax lu ci xam tabarkalla Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam ñu ngi si mille huit cent seize ba gën a si àddina ngi nekkoon góor mhm. def li xale di def bu mhm. ñuy dox mhm. di dox ak di dem baayam Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam téye la ko ni ko isaa nag jot na pour nga jàng waaw bu yóbbu ko ci ku ñuy wax tafsir Ibrahima Mbengue ngay jàngal waaw waaye liggéey bi ci jàngale yi mooy saa bu ñu demee. moo hmm. tafsir Ibrahima Niang bu ko nee waxal baa. Hmm. bu maam Seydou waxee baa tafsir Ibrahima Niang day sum. ah <laughs> tabaraka. <laughs> ñuy dem. ñuy dem ñu ximbali ko mu jóg. Hmm. mu jóg yëf yi tourné. bu nee bu ko nee waxal siin. maam Seydou bu waxee siin moom ci boppam mu xam. <laughs> yëf yi commencé na mu jël ko. yóbbuwaat mhm. ko ci bàyyam Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam. Mhm. Mhm. ni waa man dañ may bëgg a jommal wala. saa mu ndaw su ma waxee nangam. bu ko waxee mu gëm. man bu ma ko waxee mu gëm. Limaamu teel ma sa doom ji. ci la Seydina Limaamu jël loxoom bu tedd ba. alayhi salaatu wasalaam daal di koy teg ci foofu Seydina Isaa. te Isaa demal jàngi Isaa mu ndaw. voilà mu ngi demal jàngi. bu tëddee fii ci àdduna ëllëg da ngay jàng. da ngay jàng. bu jëlee nekk ba mu jëlee boo loxoom per per per dina fekk ci boppam. rocc na sërbu ba. waaye ñu déggee bu baax. te dafa yóbbee nag te dina ay saako ma see jàng normal. maa ngi la bëgg a wax si tufuura ci yi. waaw yaa ngi mu nekkee mu nekkee ndaw. bu commencé di jàng. jàng bi yéeme woon na lool. waaye daara ji xumboon na lool. ndax. bu ko buñ daan buñ daan mus di uti euh, nu mu nu koy tuddee dem ci tool yi di uti matt ngir man comme ni ñu koy defee tey daara yi taal am matt bu bu bu yaatu daa di koy taal wër di jàng alxuraan loolu lañ daan doyee matt mi da dañ daan gis maam Seydi bu daan dem maanaam daawul daawul daawul daawul nangoo daawul daawul daawul jël matt bi taalibe yi bu ñu ñëwee boole ko tafsir Ibrahima Mbengue bu ko tafsir woowee laaj ko lan moo tax doo jël si mat yi mhm. mu ni bàyyi man mënumaa jël si mat yi mënumaa jël si mat yi mu ni lan moo tax la mu bëgg nga wax ma lan moo tax mënoo jël ci mat yi mhm. xam naa nag xel bi day delluwaat li garab yi doon defal baayam waaw waaw bu ko bàyyi Moussa na yónni ngir muy uti ay ay ay ay ay matt moom it mhm. dafa daan ñëw ni papa man indiwuma dara bàyyi bu ko laajee mu ne kat li annal asjaara tusajjiduuni wa tusallimuuni garab gu mu jug ngir bëgg kaa gor mu daal di si sujjootal xëy na loolu noonu moo topp ba si doom ji ndeysaan ah ñu jógee dimension boobu dem ci ci ci ci côté ni du sangu moom maam tey di ñu ah. ko daal ñu doon seetlu daal bu ñuy bu ñuy sangu ñu ñëpp maam moom du nangoo summeeku ngir sangu hmm. ñu ñëw boole ka euh, seen sëriñ mooy tafsir Ibrahima Mbengue mhm. tafsir Ibrahima Mbengue ni ko Seydina Issa lan moo tax doo sangu mhm. mu ne ko bàyyi man bu ma sangu mhm. mu ne ko dama bëgg nga wax ma lan moo tax doo sangu tafsir Ibrahima Mbengue bi maam Seydi tontu si la jëlee loxo bi jël tuflit daal di koy def nii daan di ko di ko di ko diw si yaram bi mais li yéeme normalement bu fekkoon daawul sangu di moo war a génn comme ni ñu ko xamee mhm. waaye bu defee ni mhm. da ngay déggee yaram bi ni muy defee biir wi naan kii kii kii ndax set wét mhm. tafsir ibrahima ma nga jël ak moom ni ko Seydina Isaa summeekul Isaa mu ndaw summeekul Seydina Isaa ni bàyyi man du ma summeeku mu ne ko summeekul mu ne ko du ma summeeku tafsir ibrahima meeg naka la ko jëlee xëtti kër ko yëkkati ko rek summi ko bi mu ko summee dafa ni laa ilaaha illallaah daw génn ndeke Seydina Isa yaram bi dafa weex tàll tàll tàll tàll tàll ñu bind si lépp lépp ay alquranul karim ba mu jeex boobu sunu borom am na lu mu lu mu lu mu bëgg jàngale waaw am na lu mu bëgg a jàngale bëggoon naa dugg ak yow si maam yi waaye xam naa day day day day day day xaw a gudd waaw bi liy mat mat mat bi li bi liy bëgg a mat jotee mm-hmm. comme ni nga laajee eh, sama sama sama waa ji léegi ci mbiru imaamul mahdi yi maanaam lenn rek doy na si tegtal ku ne woote nekk si àddina waaye problème bi ànduñoo ki saa te yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu gëm moo daan wax naan isaa mahdi yu duñu mukk lu dul day ànd ak yonent yàlla isaa te ñun ñëpp xam nañ yonent yàlla isaa deewul par rafa'ahu llaahu ilayhi yàllaa ki yégaloon te war na wàccaat ndax dëggal waxam ji muy wax naan kullu nafsin zaiqatul mawt ndax bakkan bu ñam dund ko dina ñam dee mhm. maam Seydi ba liy bëgg jot jot ba liy waaj a jot jotee mhm. à l'âge de mhm. muy dund ak baayam si kër gi dund ak baayam si kër gi waaye dund bu sell it dund jox ko worm ak lépp ndax dan ni yonente yàlla isaa ki muy topp ci ginnaawam du mënul doon kenn ku dul yonente yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ndax daraja gi isaa am ndax bokk na ci ulul azma bi 33 ans 33 ans yi jotee maam Seydina isaa am benn problème bu am ci diggante moom ak papaam am na ñaari riwaay yu ci am ñii dan ni bàyyi laay alayhi salaatu wasalaam da daan faral di sant mañ ñi ay liggéey bis jot mu sant leen liggéey pour ñu defaraat sàkketu kër geeg yooyu hmm. bi ñu paree moom Seydina Limaam kontaan daal di xëcc benn nag hmm. ni nañ ko rey daal di koy xéewlu hmm. bi ñu ko jëlee rey nag bi daf ko ay saam daal di koy séddale bi ñu ko séddalee fàtte yonente yàlla Isaa ah ki ko doon séddale mooy tas Ibrahima Mbuub bàyyi njaga euh, Mbuub xaw ma nan Mbuub damay fàtte tuur bi bàyyi libaas mbuub moo doon séddale euh, ndawal gi mhm. bi mu defee loolu mu am kersa mhm. nekk ah limaamu isaa mu ndaw de amul mhm. mu nekk isaa mu ndaw amul waaw mu nekk teem akaa jox sama ndaw li mu nekk déedéet bu ko jox ndax buy lekk ay gëléemam di lekk ay xaram di lekk ay nagam man limaamu duma ko fekk kon bu ko jox sama ndawal <laughs> ñii ne ñu loolu lañ jotee loolu la Seydina Seydina Isaa daal di ñëw merci loolu daal di joteeg moom daal di koy génne amaat beneen riwaaya beneen riwaay bi mooy Seydina Limaam dafa bëggoon maye benn doomam mhm. bu jigéen mhm. bi mu koy maye kooku d'accordul ci maye bi mhm. maam Seydi yëg ko dem di ko defal inter euh, interprétation fu euh, mu koy waxee intervention dem ni ko bàyyi bàyyil xale yu jigéen ñi ngay maye te bëgguñu mu ne gisaa lan nga mu ne ko bàyyi xanaa xamoon ne nguur gu dul nguurub yàlla day jeex mu ne ko isaa man ngay tontu loolu mu ne ko génnal mëp kër ci la Seydina saa defaree ay bagaasam daal di génn yoof jëkkmal Dakar c'est que bàyyi lay bind na ay lettre tasaare ko si ni isaa mu naw génn naak ak bu ko gën bu ko gën fat hmm. sabab la dafa am lu hmm. bi mu demee si euh, góor gi bay sil la hmm. mu ni ko sa baay day la jàllee dem dem dem dem ba Tëngéej am na ku ñuy wax Baye Momar Wade Baye Momar Wade daa jël ab lafañ la woon handicap la woon mhm. jël ko teg ko si tànkaam bi tànkaam yaa ngi sew lool mhm. bi mu ko Issa toogal samay tànk sëy naa Issa ndeysaan am na ñeewante si tànk paa mhm. ndax ni mu mel mu ne Issa toogal bàyyi Momar Wade yàlla xamal ko ne que Issa bii dafa am ñeewante si moom mu ne sama tànk yi de ni mu sawee nii waaye noonu la diisee toogal te Seydina Issa toog mu daal di koy tël tëlaat ko mu jóg mu ne Issa waxtu bi jotagul génnal si la sëy day nay saa dem di dem di dem di dem fan la jëm ngaa xam la jëm waaye jaar na euh, Tiwaawan mu ni fii de sama baay bu tedd bu sell ak bi xaar ma jaar nuyu ko bi mu fa jaaree nuyu ko ñu dalal ko am na la fa xew entre parenthèse am na benn góor gu mag bu génnul ah, bu génn àddina ndeysaan fan yi rek am na benn wax ju mu wax ni moom man man na waat ni teel na yonente yàlla isaa ak buusam mu ni man man naa waan ne teel naa yonente yàlla isaa mbuusam lan moo tax bu wax ko mhm. te Seydina isaa jaar na euh, euh, Tiwaawan ba am lu fa jot a xew mhm. ci la continuer na jubali ngaa xam mhm. bi mu demee ngaa xam mi ngi fa fekk ku ñuy wax Baye Mamour Jaxate waaw Baye Mamour tax Jaxate bi mu di ajjee ngaa xam moog Baye Mamour Jaxate Baye Mamour Jaxate moo ko daan jiite julli di mm-hmm. ko jiite waxtu yëpp mm-hmm. waaye bi 33 ans yi matee mm-hmm. fekk Seydina Limaam am 66 ans si la Baye lay génn àddina nag bi mu génnee àddina moom maam Seydi si guddi gi la tëdd ñu won ko ab jant gu nekkoon ci kaw asamaan ba pare suux bu koy firndeel li bàyyam génneen àddina moo tax bi tàggee gi di ñëw ba mu ñëw di ko wax dana ko biig sama borom xamal na ma ko si la takkee ay bagage waaye fajar googu nee nañu pour wax la mag ñi ni ñu amee kóllëre ak ni ñu amee yar bàyyi maamu jaxate moo ko daan jiite xam nga waaye koroog bi bàyyi lay suuxee bàyyi maamu jaxate fa mu daan ne dafa dafa daan dafa delluwaat toog fi yonte yàlla Isaa daan toog jël place jox ko maam Seydi koroog moo ko jiite parce que jot jot na moo tax ci la Seydina Seydina Isa daal di jëlee nag saxaar mm-hmm. daal di jugee ngaa xam mm-hmm. war a jug duñ euh, euh, koy waxatee euh, jël saxaar mm-hmm. xam nga dañoo yonte yàlla Isa juróom-ñaari asamaan lay jugee buy wàccaat ci kaw suuf ngaa xam ba yaraax set gaar moo fa nekk gis nga yàlla buy wax du détaillé day juñ yàlla day day day day day junj noonu la mbir yi demee ba ni mu wàccee yaraax ndeysaan ak li fa xew ak yeneen ak yeneen ak yeneen xëy na taa bi boo ko dul loolu la lay wax na dëgg signalé ci suuf moom <laughs> wax bi daanaka fel na li muy gàtt gàtt dugg nañ fi fanweer bi daj juróom te fanweer bi lañ waroon ah, waaw kon daal mu mel ne eh, kon sëñ Saxeer eh, xanaa rek su ma la waxee ne waxoon na ne dërëm bi su ma tuddee dërëm bi sa xel na am fu mu la dërëm baa ngi ko ko teg ci sama loxo doo ko gis loxo rasulullah alayhi salaam kooku doo gis loxo def lu rasulullah doo gis sama loxo. waaw laaj ba am solo la waaye bala maa kii xanaa fàttali sama rakk ji rek. <coughs> ni ko uh, leeral lay nekk rek. Hmm. Seydina Limam bi mu yóbbu Seydina Isa Daara. Hmm. Serigne Ba mu nekkoon tafsir Njaga Géy. Njaga Géy. léegi moom tafsir Ibrahima Mbengue mm-hmm. ñoom ñoo ñoo doon jàngandoo. Mm-hmm. moo tax yu bari ñu ko doon def mooy sang boobu ngay dégg. waaw waaw waaw loolu rek laa ci doon leeral. Mm-hmm. Euh, li nga laaj nag laaj bu rëy la. dañuy wax ñu ne nit bu nekkee ci caaxaan. wala bu nekkee ci loo xam ni du rëgg. buy bu mu gën a jege dee dina ragal boroomam. waaye bàyyi laay bi mu wax loolu. booba feebaru bi ko jé jénne àdduna daal la mooy kore gi mu mujjee jiite jàmmalaay te day sax waxtu wee ko dul may mais kon ma desaa yenn ndax bi ko mag ñi jëlee ci kër yi di ko yóbbu ci barab jullikaayu iit ba hmm. mu naan cey sama jullit tay bi hmm. ku leen ni woon ab néew dina jiite ñuy dund hmm. mu doy waar waaye man mi ab néew la bi mu ñëwee toog feebar bi jàpp na ko ba toog na lu mat fukki minute pour dal ca la waxee nag benn fóore bu ko jigee woon ku jox Cheikh Makhtar Lo mun ko bi Seydina Mouhamad tolloo fii lu xewoon Cheikh Makhtar Lo da koy nekk di téere ba Bushral Muhibbin mu ne xamul góor gi julli mu ne ko déedéet Seydina Mouhamad bu mu tollee ci feebaru génn àdduna lu ko Jibril waxoon Cheikh Makhtar Lo door a fàttale ko wax ni ko jibril daka Seydina Muhammad dañu woon jibril jibril bi mu ñëwee dañu ko damay jël si sa ruu boo ma ci joxee ndigal ba mu jox dëgg ma dellu mun kon boo demee ne sa boroom hmm. samaw xeet hmm. <laughs> hmm. ummati ummati ummati ba mu demee ba yàlla ni ko nag garanti nag aw xeetam dañuy fexe hmm. ca la door wax jibril ni ko jëlal sa mam hmm. mun ko foofa Muhammad tool woon tey falaa tool waat nii tey maay dindi maay tey maay tey hmm. ca la ko waxee nag ni ku yor ab dërëm boo xamante ni ñii ne woon nga koo jox Seydina Muhammad bu ngi tasee ci kaw suuf tegal ci sama loxo buñ demee ba àllaaxira nga gis ma gis yeneen jëmm muy Muhammad ma ànd ak yow jël dërëm ba teg ko ci loxo Seydina Muhammad waaye nag boo demee ba yomal xiyam nag gisoo kenn gisoo Muhammad gis génn jëmb mm-hmm. xamal ni kon sa dërëm réeru teg ko ci loxo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fukki fa mu waxee loolu fukki fan ak ñett la ci def génn àdduna sunu kon kooku mooy sunu bàyyi Seydina Muhammad eh, ñu siyaare bu baax njabootu eh, xalifa Baye Laye yëpp. ku mm-hmm. mel ne maam Seydi. Mm-hmm. Baye Mandione Seydina Issa mu daw ñu koy wax euh, doomi Seydina Mandione. Mm-hmm. Euh, naa Alsane Laye moom sëñ Seydina Mandione. ak Baye la Thiaw Laye yàlla fi yàgg loolu. waaye itam di siyaare itam njabootu ko euh, sëñ Baye Laye yëpp. maam Seydi maam Seydina Issa Rouhoula maam Mandione maam Babacar. maam Mantoulaye soxna maam Mantoulaye. Euh, maam Aïssata Sène Ndiaye ak euh, maam Malick Sow tabaarkalla ñu ngi leen di sant bu am leen jaar bi di jaaree di ko sant nag euh, commission scientifique bu Kër Baye Laye bi leen wax rek ni lan Bichri TV mooy la télévision islamique pour suñu salaatal Xaadimu Rasuul amul amul xejjat kenn kenn ci yow ci diine ñu dégg Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul fàttali ñu ne fa kullu wëddum ñu ngi gën ñu لخلوة لائل ولم يهلا سواء انتمى الى الجلال او انتمى لاحمد التيجاني او للصواب من الافكار كلهم فقط الافكار xam naa euh, ñàkkul ñu mën ñoo dimbali wut ñu fi xanaa maam euh, Baye Seydi mm-hmm. way yi nga xam ne daan ko way mm-hmm. sa mm-hmm. Baye Laye bu defee ñu mën koo tëjee jotaay bi macha allah damay xalaat li may dolli si wax soo mag ju tedd ji rek maanaam même bi Baye Laye waxee bi ana kan mooy jël dërëm fekk sama loxo keroog nee nañu am na mag bu jóg jox ko ñetti dërëm ñetti pièces yu dërëm daal di koy jox ndeysaan alayhi salaatu wasalaam kenn du moom après di wax ni tamit maanaam comme que jërëjëf si leeral bi fàttee mag borom ndax tafsir yi dañoo xaw a nuróo xamante ni la yàlla xam doy la waaye daal dañuy sant yàlla bu baax baax a baax a baax ndax libaas ñag nee woon na ko gënal nga ñu sunuy ndey moom maam Seydi gënal nga ñu sunuy baay te yaa gën sunuy maam gënal ñuy même alal xaalis junniy junni yaa ngi ko yaa ngi ko yaa ngi ko gënal ah, naan kay ay kéemaan nga àndal te say seede jeexul ku lam-laame laajul si gox fii ñu ne waaw waaw <laughs> dinaa xew ni xale yi waaw laa <laughs> <laughs> ilaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaha illallah muhammadu laa ilaha illallah moom la Ndiya inena muuma kusalina neena muuma amodoon wala jooba isaab di sañse gaa yi geewul maam li maamu safaraange xaaj di fuuru gaa yi weddi maam li <laughs> maamu abdullahi abi balaahi doomi seydi roo walaayi ku ka xam-xam na bàyyi laay بدعا شعب لما من مكر أهل المكر فولك بني دوام شكري كم نوم سبين دي دوام شكرون لمن يبت خب خبي من وقتنا أكبر تدبر بيت بايلاي سينا يسار وخلا نيان سنبرم سبحانه وتعالى على جابة جالا يكفل الدواء نولا نيان سنبرم سبحانه وتعالى كم تلاي نورك حاجة تجان نيك سنبرم سبحانه وتعالى تجان لها يكفل الدواء بود فن والأشياء والأشياء والأشياء من أغنك أتبع إن شاء الله بسيدنا يوعن لقل إن شاء الله taala assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh faaxa jamii al anbiyaa wa rusuli